lépp jot na waaye li ngeen jëf waaye maa bég si saw bi allahu akbar kenn koy bu fekkee bu fekkee ne ramadan gi la tiir koy bu fekkee ramadan gi la tiir be munatuloo ma xaami koy koy koy am ba feer ñu ngi ndogu koy yow yow sama njëkk nga nekk xanaa caali lii yëpp si caali nga bokk ndànk koy. ma ne yow si ban aduna nga nekk. yow ban benn nga nekk ah ban benn nga nekk ah. léegi. kañ lañ doon di ndog fay. ma ne yow lu la oor yow da nga gis weer. non. dama laa laaj yow kañ nga gëj a gis weer. islamic council ñoo xam ne. waaw islamic council ñu leen sukkandiku. saw si saw su ñoo julli si ñaani dee sukkandiku saw saw bi bàyyi leen léegi nag ñoo ñoo gisal weer bi di sukkandiku suñu lu tax duñ ndogoo ñoom five thirty man laay ndogu man xaaruma be non sooy jox na léegi da nga bëgg a topp sax non du topp sama wala yow nag or baa amul man nangu naa loolu ma mun léegi yow léegi yow nii nga plané pour ndogu waaw waaw nii nga plané pour ndogu ma ne xanaa déglu ma saw bi ñoo ñoo gisal weer ñoo ñoo julli kon nag man saw bi laay ah waaw. ah continué loolu la. ah ñoom ñoo ko wane. mais sa wéy sax sax ne nekkul sax ni Afrique. waaw léegi yaa ngi am ñoom. bàyyi ma ne ma togg. naa ko mun nga dogu fa. si si ndogu bi. ah yow sax dinaa ndogu. ah yaa ko wéy. da ngaa jëlee ndogu gi. yaa ko wéy. gi la fii. ah bi bon bi. ah amu